الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومهوى الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله mbokk yi ci yàlla tabaraka wa taala ginnaaw bu nu tàmbalee ci turu yàlla subhanahu wa taala ñu ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yàlla na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokk yi ñu ngi ci weeru gàmmu weer wi nga xam ne ci la gën gi mbindeef muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam gane àdduna li ëpp ci ñun ci weer wi wala ak weer yi nekk seen kanam dañuy faral di dajaloo di tagg di kañ di bàkk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di wane ne dañ ko bëgg est-ce que bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam day yem ci zikr rek turam di ko tudd turam wala day wane ne bu ñu waxee muhammad rek nga fettasu sallallahu alayhi wa sallam am ay mbir yu ñu boroom xam-xam yi alayhimu salaam yal na jàmm nekk ci ñoom jàngal ñu ne ñu mbir yi kat xeet wu mel nii wala ay nit yu mel nii wala mbooloo wu mel nii dese nañoo bëgg yonent ñu ne ñàkk bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dana feeñ ci fukki mbir ak benn yu ab jullit di def ku ko ne jàkk xam ne kii bëggul yonent bi kon ndeke bëgg yonent bi du mbubb mu ñuy sol du kàddu gu ñuy wax du barab bu ñuy dem waaye jëf la bi ci njëkk mooy al bu'du ani sunnati baatinan wa zahiran suñu bëggee xam kenn ca ñun bëgg na yonent wala bëggul yonent na xool fan la toll ci sunna yonent bi ci feeñ ak li nëbb zahir ak baatin loolu tey buñ ci duggee kenn ci ñun man cee natt boppam danañ gis ne topp aada moo ñu gënal topp sunna topp aada topp ay xar baax yi fi maam yi indi woon wala ay aada yu xeet wi xam yu fami bi xam nga topp loolu yow moo la gënal nga topp su nga nga topp sunna yonent te boo génnee ci mbedd mi wane ne yow da ngaa bëgg yonent te bi nga amee léegi xew biñ nee yonent bi da nga ne ah ñun kat sunu famille xamuñu woon loolu ñun sunu aada duñu def loolu ana kon lu ñuy wane na bëgg nañ yonent aada yi moo ñu gënal sunna yonent li feeñ ak li nëbb soo nee yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa tere jigéen ak góor ñu joxante loxo ñu ne la ah mais nu ñuy def soo nee yonent bi dafa tere nangam ñu ne la nu nuy def ah est-ce que kon ñun bëgg nañ yonent wala bëgg yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam day nekk ci gémmiñ yi rek ci làmmiñ yi kenn du ko dund yonent bi ku ko bëgg da nga koy topp innal muhibba liman yuhibbuhu muti ku topp da ngay topp ka nga bëgg ñaareel ci melokaan buy wone ne waa ji di wax ne dafa bëgg yonent du lu dëggu ci moom képp ku am ñaareelu melokaan bi bu yeboo nga xam ne yow bëggoo yonent mooy raddul ahadis as-sahih ñu ne yonent bi nee na nga ne waaye nag yonent bi nee na góor du takk or nga ni mais yonent bi nee na góor du takk lam nga ni waaye nag yonent bi nee na góor du bonn nopp nga ni waaye nag yonent bi nee na góor du takk tubayam ci ay luppam nga ni waaye nag ana loolu ñuy wax ak bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam saa ñu le ne yonent bi nee nga ne waaye ba pare yow nga ni bëgg nga yonent xoolaatal sa bopp ñetteel ci ay feebar yu dal jullit yi te ñu ne dañoo bëgg yonent te bii ku mu dal bëggoo yonent mooy al udulu an siratihi sallallahu alayhi wa sallam wa sunnati mbokk yi am na jullit yoo xam ne tey ci kaw suuf foofu day sori am na jullit yoo xam ne tey ci biir Sénégal équipe nationalu Italie lañ gën a xam ak yonent sallallahu alayhi wa sallam ak ay sahaabam ak waa këram boo ne tegal ma classe équipe nationale italien bi jëloon coupe bi benn du manqué remplaçant yi sax gars yi dinañ la ko limal mais boo leen yonent ñu ne ah wax dëgg yàlla day man ba ma nekkee xale dañ maa teel a génne ci daara ji yóbbu ma daa akal boobu ba léegi nag yëratuma dara ci diine am na ñoo xam ne fas fas buy daw cal Allemagne mbaa ca Italie mbaa ca France lañ gën a xam yonent bi ak waa këram ak sahabatul kiram fas dinañ la toppal benn fas ci pays mi bi xam juróom-ñeenti maamu fas bi juróom-ñeenti maamam yan kub lañ mës a jël ba ci fas bi taxaw ñu wax la fas bi ñaata kilo la ñaata nangam ñan ñoo ko mus a moom fan la mës a jaar mais boo leen nee yonent bi nag ñu ne la ah wax dëgg yàlla day te moom xam nañ ne daal moom moo fi gën moom waaw loolu moom moom xam naa ko ci moom foofu rek la la waa ji di yemal est-ce que tomb yi ñu wax ñett yi ñetti feebar yi nga xam ne ku mu dal yow yaay askalin sa bopp ne da ngaa bëgg yonent waaye yonent bi du jaaroog yow ëllëg yowmal qiyaamati ñeenteel nazu haybatul kalaami xiina al hadisu an nabi di nga fekk jullit yi suñuy wax ak ñoom naan leen yonent da ngay gis du ñu wegu du ñu wegu du ñu sentir dara boo leen di tuddale yonent yàlla muhammad te am na barab yoo xam ne tey boo fa duggee di fa tudd nit nga gis ay nit di xëm ay nit di yuuxu di jooy di salleeru nga dajeg jullit yi ci jàkk néegu yàlla naan leen muhammad kenn du yëngu doo dégg benn biir allahu akbar ñi wane ne dañoo bëgg yonent kon ana mbëggeel guñ ko bëgg fan la toll ci ñun ci tant ay tant rek lekk ay cere lekk yàpp daal di jóg ñibbi suñ ne muhammad ñu daal di fettasu ne loxo ci kaw bàkkaar ci suuf foofu dong la ci waa réew mi yam ak yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam nazu haybatil kalaami rocci gu ñu dindi jëmm bu ñuy wax waxu yonent sallallahu alayhi wa sallam doo dégg kenn di julli ci moom doo dégg kenn wekk ko doo gis kenn changer comportement doo gis kenn sëngamtalu doo gis kenn xëcc yërmande ci boppam doo gis kenn di toroxlu sallallahu alayhi wa sallam juróomeel buy wane ne dañuy wax rek ba léegi bëgg gu ñu yonent wax ji rek a fi nekk xajru ahlu sunnati aw ightiyaabihim wa istihzaa'i bihim buñ nee waa ji de yonent lay topp wala waa ji dafa bëgg yonent wala waa ji day roy yonent nit ñi kenn du ko respecté bal sax dañuy jàpp ne yéegi kii amul kilifa yow amoo kilifa yow ku ne yonent bi mooy sama kilifa ban kilifa moo gën a ëpp doole yonent ki nga xam ne yowmal qiyaamati bu jaam ñi dekkee mooy njëkk a dekki moom dong mooy sol yére keroog bi yàlla nammee jaam yi taxaw ci kanam dana jibril demal nga indil ma muhammad jibril na cëpp ci suuf si gis lépp nekk suuf su xonk lépp maase xàmmeetul sax bàmmeel bi fan la nekk ak fii ngeen di gis tey mu tëdd nu mu mel lépp ay raase sunu borom subhanahu wa taala moo ko wax yàlla mu ne kalla ida dukkatil ardu dakkan dakka lépp lay mokkal dara dootu fi taxaw jibril na cëpp xàmmeetul bàmmeelu Mustafa sallallahu alayhi wa sallam mu delluwaat ci borom bi sunu borom a ko gën a xam ne ko ana ki ma la yónni woon nga indi ko mu ne xaw ma bàmmeelam fu mu nekk mu ne ko dellul mu dellu wàcc ci kaw suuf mu gis ñaari projecteuru nawe yu weex tàll tim bàmmeelu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ñëw ci diggante ñaari làmp yu weex yooyu fëgg koŋ-koŋ yonent bi ne kokkan la mu ne ko jibril lu xew mu ne ko yowmal qiyaam moo jot sa borom moo lay woo yonent bi ne bërët génn ci suuf si xar si kim bi taq suuf jibril di ko fa xas moom la ñuy njëkk a jox yëre yëre keroog ne ko solal mu waaxu ay jéego fëggi buntu aljanna kii garde ne ko kokkan la ridwan mu ne ko muhammad mu ne ko yow lañ ma wax bala may ubbil kenn naa la ubbil ba pare yow bala ma kenn ñuy ubbil kenn yow la ñu njëkk a ubbil kooku jar na xam wala jarul xam kooku ko xamul ëllëg yowmal qiyaam ci biir bàmmeel ngay njëkk a rëccu juróom benneel buy wane ne nun dañuy wootewu rek ne dañoo bëgg yonent waaye dafa des xajru sunna almakaaniya xajru sunna almakaaniya gàddaay gi nga xam ne dañ ko gàddaay sunna yonent sallallahu alayhi wa sallam yi ñuy dundal ci ay barab mu la ne yonent bi nii la doon lekkee doo lekkee noonu bu la ne yonent nii la doon naanee doo naanee noonu su la nee nii la doon soloo doo soloo noonu su la nee nii la nekkoon ak ay soxnaam doo ko def ba pare chaque jour ngay wootewu naan yow da ngaa bëgg yonent yal nañ yàlla woon dëgg mu wërsëgal ñu topp ko yal nañ yàlla woon neen mu wërsëgal ñu bàyyi ko aqulu ma tasmaun wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله الحمد لله وحده ولا نعبد غيره مخلصين له الدين ولو كره الكافرون إخوة الإيمان جرم بنل بي ولا جرم نيارل ci feebar yooyu nga xam ne dafa fees dell ci xeet wi ci biir dëkk bi ci réew mi ci nit ñi ci gox yi place yi foo dem nga fekk nit ñi tant rek kenn du nelaw guddi di yuuxu soo ne lu xew ñu ne dañuy màggal yonent bi waaye boo xoolee comportement nit ñi ak seen melokaan ak seeni jëf seen digganteeg asamaan noonu la ñu soranteeg yonent yàlla Muhammad lu koy wane mooy adamu maarifati xasaisi nabi sallallahu alayhi wa sallam wa mujizatihi am na ci ñun ñoo xam ne boo leen ne woon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo def nangam ñu ne la diw moo def nangam nga ne yonent moo wax nangam ñu ne la diw moo wax lii misaal am na ñuy jàpp ne seeni borom xam-xam ñoo gën a for Muhammad boo ne yonent yàlla Muhammad alayhi salaatu wassalaam day mu gën ci bindee fi nga dégg waa ji ne la ñun day kurul diw ki ñu àndal kooku moo fi gën ndax moom du nit kon suñ ne Muhammad turu keneen waratul ñëw xam ngeen saxaaba bu màgg bi lu mu doon wax saxaaba yi moroomam yi billahi wallahi taalahi manaan leen yonent bi nee na ngeen naan ma Aboubacar ak Umar nee na manaan leen yonent nee na ngeen naan Aboubacar ak Umar allahu akbar te ginnaaw yonent yàlla Muhammad ak yonent yi ci kaw suuf ku mel ne Aboubacar amu fi xam ngeen Aboubacar ñan ñoo ko gën ak saxaaba yi xam ngeen saxaaba yi ñan ñoo leen gën yonent yi ginnaaw yonent bi ci màggaay ak mbaax yonent yi ñoo ci tegu ginnaaw yonent yi Aboubacar ku ko wax yonent bi mu ne wallahi ma wataati l ardu baada al anbiya xayrun min abi bakr giñ naa ci màggaayu borom bi ginnaaw suuf ginnaaw yonent yi ku mel ne Aboubacar doxul ci kaw suuf kooku la sahaaba bi ne leen yéen de maa ngi leen ngeen dee manaan leen yonent bi nee na ngeen naan ma Aboubacar nee na allahu akbar ndeke kon buñ ne yonent nee na keneen amatul wax keneen amatul kàddu mais loolu du ci Sénégal de ñaata la yonent bi ne man xalafa bi gayri llahi faqad ashraka ku giñ ci kudul yàlla bokkaale nga ku giñ ci kudul yàlla yonent bi nee na faqad kafara wa ashraka bokkaale nga génn nga ci diine soo ko waxee nii benn waaye mu ne la xoolal xaaral sax ndànk laa waxoon xaar ma tegale ñett nit billahi wallahi taalahi parce que waaye dalay jéem a jaay ne man yéeféer bu ñuul kukku laa lu amul importance ad diinu an nasih wolof yi nee na ku leen sangul sa taar la bëgg su yonent bi nee lii ku ko def yéeféer la nga ni yaa tey billahi wallahi wa taala yi yéeféer nga te bala ngay xam ne yéeféer la nga dee nga yéeféer nga nga dee dugg biir bàmmeel dafa am benn waay dafa nekk ci sàpp bi di julli kon kooku ab julli la imaam bi di waaraate ne mooy tandiku leen di njëkk a siggi imaam su imaam su jootee yonent bi nee na ku ko njëkk a siggi soo moytu léegi sa bopp nekk bopp mbaam xoox hadis bu wér la benn waaye nekk ci sàpp bi di sikki sàkk ci wax ji naan eh loolu dafa mën a nekk ci xelam fa mu toog di déglu xutba ma sama bopp bopp mbaam xoox a yow ñii dañu bëri wax waaye waa ji loolu topp ko topp ko topp ko ay fan ay semaine ay weer ba mu dugg ci benn jàkk rek ne xaaral ma essayé ko tey iliman sujur rek mu ne bërét ŋaam yi daal di tourné bii dem gauche bii dem càmmoñ ŋaam yi chaque jour yëf yi di gën a dem di gën a sori bu feebar xamatul nu muy def mënatul liggéey yi ndax ŋaam yi niñ def bii dafa dem day yor bi dem càmmoñ wuute mu dem yóbbu ko fu nekk mun tawér yóbbu ko ci benn borom xam-xam mu ne ko waaye yow loo def nii mu ne ko damaa weddi xadiisu yonent rek waa ji xëm ne ko loo ko weddee mu ne yonent bi dañ waa ji ilimaan bi dane ku njëkk a siggi imaam yàlla day def sa bopp bopp mbaam xuux mu ne man gëmu ma ko woon rek boroom xam-xam bi ne ko yonent bi nee na doyu la yow yonent bi nee na doyu la man ku yonent bi doyul mënuma koo faj est-ce que ñun yonent bi doy nañu wala mooy suñu wax képp ku julli si jumaa tey poser question boobu sa bopp laaj la laaj boobu sa bopp fi nga toog laajal sa bopp ndax man yonent bi doy na ma bu fekkee yonent bi doy na da ngay xool fan nga toll ci li muy santaane ak li muy tere ndax li mu tere bàyyi nga ko ndax li muy santaane def nga ko sallallahu alayhi wa sallam ñàkk a xam xasaayisu nabi ak ay kéemtaan doy na ci ñu xam ne dañuy wootew rek ne dañoo bëgg yonent juróom-ñetteel ci tomb yi wane ne dañoo sori yonent ay wax kese la mooy al ibtidaau fi diin li yonent bi jàngale ci diina doynu bu nu doyoon ñu jàpp ci waaye dañuy indiwaat leneen di ko ci yokk yenn saa yi sax nga indi leneen ñu ne la yonent bi deful woon li nga ne waaw ma yonent bi deful woon li mais man lii lay def ah waaw parce que man lim kii ma ko jox wóolu naa ko kii wóolu naa ko man waaw yonent bi nag li muy indi wóorul allahu akbar ñu ne la yonent bi lii la indi woon nga ne waa yonent bi lii la indi woon mais man lii lañ ma jox xoolal léegi bu ñu sëlmalee ci julli da ngay gis ñaan yi ñii di bind ci sijaada yi ñii di bind gauche ñii bind droite ñii di dessiner ay ñii di xeeñcu ñii di joxoñ ndeyjoor càpp façon ñaan bu nekk ngay gis bu nit ñi sëlmalee yooyu fan lañ ko jëlee seeram day daw ak yi loolu te te ci boobu laa ñemee yem ah ci yooyu laa ñemee yem nit fu nekk ngay gis xoolal guddi ngay gis ay sabar di tëgg di fecc góor ak jigéen ba minuit waxee ñu ne li waaw waaw yonent yi ci diine bi la bokk ku koy indi yonent nañ ragal yàlla nañ ragal yàlla nañ xam ne dañuy dee armeel yaa ngi nii jege te kuñ fa dugal rek sa yool ma xiyaam taxaw na allahu akbar nit ñi dañuy del siwaat fii di lekk di noos kenn xamul loo nekkee coow lee bari rek billahi wallahi taala buñ xamee loolu dañuy dem ci armeel yi kon danañu fexe suñu digganteeg suñu borom suñu digganteeg suñu yonent ñu xam li mu indi woon sahabatul kiram ñemewuñu woon wuuteeg yonent ndax alquran moo ne fal yahzari allazina yuxaalifuna an amrihi an tusibuhum fitna aw yusibuhum adabun alim yal na yàlla def ci ñun dégg ak topp allahuma arina alhaqa haqan warzuqna ala ittibaihi wa arina albatila batilan warzuqna ala ijtinabi allahuma ya musabbitu alqulub sabbit qulubana ala taatik allahuma fa nasaluka an taruddana ala dinika maradan jamila اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة عباد الله يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله بسم الله الله أكبر الله أكبر وأشهد أن لا إله إلا الله